ربي بما يسرون أزآن قد فجأ بجاي أبدل من لله قد لجأ حمدي لرب الكريم من لا شريك له وصدري اليوم نورا ساتئا ملأ محمد صلوات الله في أبد هلي في إذبه كل به كلام قلبي tàmbalee soññeeloo ba nagal nan ko daan defe rek nan koy defe nagal noo kilifa yii ko àndal kenn ci ñoom taxaw ni di sëriñ saaxa bi mu sëriñ daal dafee ak bokki taalibe yi ko àndal soññee bi it loolu ñu ko daan sant ni di ko tàmbalee sëriñ saa jëm faal soññ njabootu seex yi loolu ñu tam ñu jottali soññee bi ci bokki taalibe liggéey bi ñëpp seq ko ndax ni ñuy xamee liggéey bi ak dayob dëkk bi xam nañ ni ñëpp seq ko rek moo ko mën a ko mën a sottal loolu itam at mu nekk loolu rek moo ko daan yéwénal ci lañ daan jaar bu lépp sotti waaye alhamdulilah rabbil alamin gis nañ ni nam daan demee rek demee na la génn naa léegi doxantu asaf waaye lañ daan gis bu toll fi mu demee ni noonu rek ni la demee wat lu mel garaam monogramme ak ñu a demee liggéey gi rek mooy mooy seen yitte mooy seen yitte ndax xam nañ ne liggéey gi rek mooy seen njëriñ ba ñëpp façon nañ ko ñëpp a ngi ci

كوني لديك كما الحج وما wàccaayu mbalem Touba mbalem Touba nag ku ne xam ne ne mooy li nga xam ne moo jiitu ci wàccaayu màggalu Touba moo tax ñu ànd ko jëwriñ ji nga xam ne moom la ko sëriñ bi teg ci loxo muy sëriñ Abdou Latif ñu ñaan suñu borom yàggal ko fi loolu te ko waaye mu ànd kook ay jëwriñ nag yoo xam ne moo tax liggéey bi fii mu àgg mu àgg fi gis ngeen euh, liggéey bi ñu xëyee ak léegi war nañ leen jëwriñ yi nga xam ne ñoo ñoo ŋànk liggéey bi noonu it lañ taxoon ak si fekk ki nga xam ne jëwriñ la ci liggéey bi muy sëriñ Moutala Si di ko xamante ni day jàppale Sëñ Abdou Latif ci liggéey bi ñu fekk ko fii ñaari étage kon dañ koy dégg suñu micro bi mu leeral ñu euh, bi ñu xëyeeg léegi fi ñu toll ci liggéey bi ak suñu partenaires yi nga xam ne mooy MoneyGram te ànd ak ñun liggéey bi te at mu ne ñuy ñëw di joxe seen participation kon loolu bu ko defee suñu motulaa nga andil ñu ci ay leeral. jërëjëf sëñ loolu ñu leen sant bu baax di sant sëñ Touba di ñaan liggéey bi yàlla may nu ci ndam te may ko sëñ Cheikh Abdou Latif ngi koy jëlee ci ndigalu sëñ Cheikh Abdou Latif rek di wax na bi tey noo ngi ànd di tonni mbalit mi di tuur yi noo ngi Daaru Xudoos nag at mu jot Daaru Xudoos la ñuy tàmbalee ba génn corniche bi tey nag noo ngi tolloog kër sëñ Cheikh sëñ sëñ Bassirou Lo ale aram foofu lañ toll tembe ak kër sëñ Fallou Lambe ci diggante boobu lañ nekk mais moom lañ nekk jàkkaarloo kër sëñ Mutayn sëñ Baara kon liggéey bi noo ci bu baax fas yéene itam fii ak nu nuy wax wàcc leen rek dañ ciy nekk ban xëy na daal da ci liggéey bi duñ wàcc wu néewuñu jeex na saa bu ñu ne wàcc leen nu wàcc kon gis nga camion yaa nii rek bu jeex rek beneen ñëw moo na ganaam itam danga koy sant bu baax ndax gis nañ ne nanga bi at a ngi nii ñu bokk ñun liggéey bi di def seen alal ngir jëmi sëriñ bi at mu jot ñu indi ab ceeb indi ay nag def ko ngir jàppale ko ñuy liggéey loolu itam lu am solo ah nu ngeen di ñaanal ñoom itam rek réew mi gën leen a xam gën gën leen a jàppale gën a ànd ak ñoom ndax liggéey bi moom ci feeñ yaay yaay ëppale ko ci feeñut société bu ci indi sa alal dooyem ko ci indi wut ndax moom ci bu seex dong la lu waay def sa biir rek la liggéey sëñ Tuubaa la lu ci waay def sa bopp nga ko defal kenn deful kenn dara kenn deful kenn dara lu waay def ko kon nag ku fi ñëw yor alal dugal ko ci ngir yàlla ak jëmi sëriñ bi sëriñ bi nga ko tax nga def ko dana la dimbali pour noonu di gërëm baax jërë ngeen jëf ànd ak yéen ci seen wàccaayu Mbalem Touba loolu nag gis ngeen ne moo jiitu ci màggal gi moo tax bi biñ ñëwee ñu teew ci ki nga xam ne moom la sëriñ bi teg liggéey bi ci loxo muy sëriñ Abdou Latif Mbacké mu joxe ndigal ci nañ wër jëwriñ yi nga xam ne ñoo ŋànk liggéey bi ñu ñëw fii nag feggoog ku ñuy wax sëriñ Dieng mu mel ne moom it jëwriñ la joo xam ne day jàppale sëriñ Abdou Latif ci liggéey bi ñu fekk ko fii nag ci kër xalif bi di Daaru Minam a ah, loolu nag di am ñu am mbégte lool ànd nañu waa Moné Monégram mel na ne at mu ne ñu ñëw fi ànd ak yéen ci wàccaayu mbale mi li nga xam ne ay ay ay addiye la ñu koy fàggu moo xam ceeb la moo xam ay nag la di ko indi ak ay sërita ngir jàppale ko ñi nga xam ne ñoo yëngu ci wàllu mbale mi kon loolu lañ la woon nañ la dëkk suñu micro nga andi ñu ci ay kàddu cant. ah asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. Euh, gan ñi noo nga leen di dalal di leen wax bisimilah euh, di bég nag lool. ndax lii at mu ne ngeen def ko man gis naa leen waxtu wu ne maa ngi leen di gis at mu ne andi ngeen ko noo ngi leen di sant bu sëriñ bi it mi ngi leen di sant sëñ Cheikh Mbacke mi nga xam ne moo yor liggéey bi sant na leen bu baax a a baax a baax ndax fekk ngeen nu fi at yu bari def nañ ko fukki at ak juróom fekk ngeen nu fi tey jii nag fekk ngeen nu ci biir kër sëriñ Bachirou nu taxaw ci buntu kër xalifa bi oto yi di waaj di war a dem Poroxaan maam jaara kon nag yéen daje ngeen ak tawfeex teg ci oto yaa ngi nii sars nañ leen ba mu fees jëm Poroxaan kon nag daje ngeen ak tawfeex noo ngi ñaan it mu ne garaam sa borom jëmale ko kanam nag ca kanam rek ca kaw ca kanam ca kanam rek noo ngi koy ñaan Serigne Bassirou ak Cheikh Mountakha bi te dana ko def nu ñaanit seex Mountakha sa borom bàyyi ko fi nag mu yàgg fi lool ci barke Cheikh Mamadou Bachir te amuk wér ndax bu fi yàggee rek liñ bëgg lépp daanu ko am loolu moom leer na ñëpp moom asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuh mbokk yi comme ko waxee Magal TV mi ngi ànd ak yéen ci seen euh, wàccaayu mbalem Touba ñu ñëwoon fii nag ci kër xalif bi gis ngeen jëwriñ jooju mujjee daaneel kàddoom te yoroon mbooloo noonu it lañ daal di feggoog euh, sëñ Abdou Akim Touré yor association bu am solo ñuy ay ndaw di ànd defar Daaru Minam euh, di ko defal murit yëpp nag loolu kon di am lu am solo waaye nag ñu ànd ak suñu partenaires yi nga xam ne ñu mooy MoneyGram ndax ñoom at mu ne dañuy ànd ak ñun di ñu gunge ci wàllu mbale mi loolu sëñ kon loo ciy wax ci waa MONEGRAM ci ànd gi nga xam ne at mu ne ñu ànd kook ñun ci wàllu mbale mi ci jàppale ci lépp loo xam ne moo xam ay nag la moo xam ceeb la lu mën a doon dañ koy indi ngir jébal ko ñi nga xam ne ñooy bale. waaw salaamaaleykum wa rahmatullah ñu leen nii bu baax a baax a baax leen ziara eh, tey rafet bu baax a baax seen liggéey ndax am na solo trop ndax bis njëkkee ma tax ma am na solo mooy ko dem kër Sëñ Tuubaa gi di nekk ci garage da xam ne MONEGRAM màggal gi am nañ ci taxawaay bu am solo buñ ci taxawee ndax bu ci njëkk mooy li ci njëkk mooy bala bi wàllum bale bi gis nañ bala yi ngeen imposé ak yeneen yeneen yu mënta wax ay diw ak ceeb yëpp teg naa sama bët ndax maa ngi woon foofu noonu loolu rek jàpp naa ne lu ko ëpp solo amut ndax eh, lu solo dëkk Sëñ Tuubaa bi ci la ci la xale yu dox ci la waa association ànd dafa daal moom di dox ci la ñëpp di dox kon jàpp naa ne monogramme monogramme buñ buñ jëlee seen xaalis ànd seen nit jóge fu sori ñëw pour liggéey Serigne Touba pour jàpp si liggéey Serigne Touba jàpp naa ne li waaye soo société def ci la rek la Serigne Touba nag kenn la moom lu ko waaye defal da ko gis seen seen entreprise bi nii ca kaw ca kanam képp la jëm waaw li nga def nii du lu ndaw ndax am na ñu ko am am na ñu ëpp am ma am na ñoo xam ne yor nañ ñu la gàññi te xalaatuñu sooy def te yéen da ngeen góor góorgóorlu jël seen alal jël seen moyen bopp ñëw di liggéey sintubaa Touba ànd ci jàpp ci te jàpp naan loolu dañ ko gën a man waaye nekkul loolu loolu gën a ñàkk incha maa ngi koo beneen yoon day gën a rafetlu. Magal TV moo ànd ak yéen ci seen wàccaayu Mbalem Touba Mbalem Touba nag ku ne xam na ne mooy tàmbali liggéeyu màggal gi loolu it gis ngeen ni ñu leen ko wane ci suba wan leen kilifa yi liñ ci wax ak lépp waaye ñu ànd ak sunu partenariat di Monogram ñu indi woon ay addiya yoo xam ne ñoom it dañ ko jëmale ci euh, bis bi. noonu it lañ ñëw ci jëriñ ju tedd ji nga xam ne mooy sëñ Alla Ñang fekk ko fi ci biir mbooloom mu nekk fii ci Daaru Xudóos def liggéey bu am solo kon sëñ Alla bi ci liggéey jërëjëf ñu ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm yéen waa Magal TV di leen sant tamit vraiment ci partenariat bi ngeen xam ni am ngeen ko ak comité d'organisation Magal gi wande am ko surtout ak commission assainissement bi nga xam ni Serigne Cheikh Abdou Latif moom moo ko jiite man mii di wax ak yéen ca jëwriñ yi laa bokk nekk chef de zone ci fii ngeen ma fekk nii c'est-à-dire diggante talib Serigne Abdou Khadre ba talib euh, Daaru Musti bi noonu la topp aussi englobé Daaru Ndiaye Aliye ci la bokk Baxdaad ci la bokk Touba forage ci la bokk ba ba ñuy dem euh, yoonu Daaru Musi cest à quartier Soxna May Njaane loolu lépp ci zone bi la bokk noonu mu demee aussi la sama yeneen nattangoo ay chef de zone am lu ñu leen pàccal ku ci mel sëñ Mourtala euh, dem rek noonu la ko sëriñ bi découpé ma di leen xamal ne liggéey bi nag tàmbali nañ ko tey ci suba di ciy wax euh, bismillahi rahmaani rahim fas yéene ci génn ci alhamdulilahi rabil alamina dafa fekk ni nag liggéey bi mooy ni nga ko waxee nii effectivement mooy action bi nga xam ne moo jiitu ci waajtaayu màggalu Serigne Touba gii loolu it mu doon lu am solo nga xam ni màggal gi Serigne Touba ci wàllu boppam bu ko daan waajal tamit nii la ko daan defee ginnaaw moom Serigne Modou Moussa mi njëkk xalifa Serigne Touba nii la ko daan waajale wala xalifa yi fi topp yëpp nii lañ ko daan waajale ñu am nag euh, deadline bu nga xam ne mooy jamono Serigne Mouhamadou Lamine Bara bi mu ñëwee la créé comité d'organisation màggal waa ne commission assainissement dénk ko Serigne Cheikh Abdou Latif mu mel ni boobu tey ñi ngi ciy napp na bi mu won ni nag léegi ñun action yu ñu def yëpp MoneyGram ci cadre partenariat bi mu am ak commission assainissement ci biir comité d'organisation màggal gi daf ñoo yàgg accompagner yëmul ci lii rek maanaam bu ñu demee ca kër ga lañu ñu fay xéewloo yaakaar naa ni lu doy sëkk la fa indi waaye noonu lay joxee oto noonu lay joxe carburant noonu lay joxe ndox. wande accompagner commission bi ci terrain bi fekk que mi vraiment sur le terrain di ont joxum ndox di len jox ay t ñuy sol di casquette pour ñu des ci naaj et ba tamit communication bi nga xamni def visualité bi li ñuy def lu am solo la gis vraiment euh, Magal TV wande and ko ak ak monogram, vraiment lool di bu solo ñu ciy sant bu baax a baax di ci gërëm ci turu Serigne Cheikh Abdoulaye Tidiane di ci sant ci turu Serigne Cheikh Bass mi nga xam ne mooy président comité d' organisation màggal gi di ci sant tamit ci turu Serigne Mountakha Bassirou nga xam ni moom da daan leble comme da daan leble nag ba yegg ci bu nga xam ne askan wi dañ ko war a fay yaakaar naa ne muy murit ñi ko mu doon ku ne des yemal ni foofu ba ñu yegg ci yeneen mbooloo yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh jërëjëf رجاء حمد لرب الكريم من لا شريك له وصدري اليوم نورا ساتئا ملأ محمد صلوات الله في أبد عليه في إذبه كل به كلام